waxtaanee li nga xamante ni rek moom mooy trente ans carrière bi nga xamante am na ko euh, ci biir euh, duwaan sénégalaise am yu bare bare yoo xamante ni euh, mu ngi koy dénoncé ci livre bu mu daal di génne ci fan yile rek daañu ko waxtaanee ak Alioune Badara ndaw ñu ngi jéggalu bu baax a baax parce que embouteillage yi ñoo ko daal di téye woon mi ngi doog a yegg si ñuy jéggalu bu baax di la nuyu Alioune Badara Ndao waaw <laughs> <laughs> <laughs> maa ngi jéggalu bu wér a wér a mhm. vraiment embouteillage yu Dakar yi moom danga koy prévoir sax mais doo ci génn. dëgg ça vraiment c' est une chose qui m'arrive très rarement. Mhm. donc maa ngi nuyu ñëpp di nuyu seen auditeurs nuyu sénégalais yëpp nuyu àdduna bi yëpp. merci Sabine voilà mi ngi noonu kon comme que amuñ temps bu bari euh, ponk yu bari yoo xamante ni prévoiroon nañ ko duñ ko mën a aborder dinañ la laaj ci sa mouvement bi di mouvement acte action civique exactement lan moo ko tax a jóg. waaw bon euh, suma livre bi moo ma fi indi woon. mais mën nañu wax ci <laughs> dinañ ci dugg après. <laughs> waaw acte action civique nag c'est un mouvement bu ñu créé. Mhm. man jege bi. Mhm. c'est bon des ji man ak euh, mm. des amis depuis 97. Mm-hmm. boo xam ni dañ ne woon bon puisque am nañ tuuti lu ñu xam ci dëkk bi te on est un groupe assez homogène. Mm-hmm. nañu jàpp ci li nga xam ne moo fi doon xew parce que temps wu Abdou Diouf la woon y avait beaucoup de problèmes et on sa mun gisuñu woon ay solution mm-hmm. alors noonu la mouvement bi juddoo ñuy dimbali état ci trouver de des solutions. ci emploi wu jeunes yi ak généralement secteur par secteur nuñ koy nuñ koy trouver solutions yi c'était pas compliqué parce que secteur bu nekk dañ daan ñëw interroger les acteurs bu ñu interroger les acteurs defar mhm. squelette yooyu acteurs yi mhm. Mhm. tontu ñu jox ñu les solutions ñu jël ko dolli ci tuuti xam-xam ak yooyu jox ko gouvernement bi d'accord kon yéen actuellement da ngeen di liggéey ak président Sall wala nguur gi ngeen àndal wala ku ngeen àndal non ñun Sénégal lañ àndal ñun ànduñu ak kenn ku dul Sénégal maanaam indi ay solution ci problème mu emploi wu jeunes yi mhm. emploi en général activité mhm. ñu loolu moom la ñuy dox mhm. opposé wuñu ànduñoo kenn faruñoo kenn ku dul Sénégal par exemple mais euh, actuellement seen mouvement ban taxawaay la am moom laay ñëw nii taxawaay bi ñu bi mu am moom mooy que président la République je crois que ci ñi ko ci ci Sénégal yëpp ñun la si gën a xam ndax lan ndax heure bu chaque semaine wala lu mu gàtt-gàtt ci mois bi danañ ko bind ñaari projet yoo xam dañ koy wax ni ndax doo defe nii lii mhm. wala moom mu ñëw ne day def lii ne def ciy def un milliard ñun ñu ñëw ne ko est-ce que boo ko defee woon nii mu gën a yaatu gën a lii ba pare jar deux cent millions du gën maanaam benn euh, chef de cabinet mus na ma wax mu ne ma. Mm -hmm. yéen da ngeen ñëw ba ci bopp président ngeen tàgg fa. Mhm. ñun la moom mooy suñu rôle opposé wu ñu c'est le président de la république c'est le mm. président de tous les sénégalais xaalis bi muy dépensé xaalis sénégalais yi la politique bu muy def pour sénégalais yi la ko war a def on est des sénégalais bu def waxee dara ñun dañuy ñëw wut ci ñu ay sénégalais yi nga xam ne am nañ ci xam-xam yu leer ci secteur boobu bi muy wax ñu ñëw ne ko bu ne moom lii la siy def ñu ne ko waa est nga defee ko nii gënu mais est-ce que li ngeen di wax mi ngi koy def non il a droit def ko. Hmm. il a le droit bañ ko def. Hmm. mais l' essentiel moom mooy que dinañ ko wax ni mën nga ko defee nii bu ko defee baax na bu ko deful baax na mais dina xam ni am na ay sénégalais yoo xam ni am nañu xam-xam am na ñu mën-mën am nañu Pastef pour développer Sénégal. Hmm. et que moom xëy na mooy président de la République. mënuñu ko tëb di dem feneen parce que sénégalais yi ñoo ko élire. ñu nekkuñu ay opposition yooyu ay lu mu def baaxul ñun toppatawuñu loolu xamuñu lu ñuy toppatoo. bu ne plan Sénégal émergent mu ngi nii ñun dañ ko jël décortiquer ko secteur par secteur ni mu ko defee mm-hmm. ce que l'opposition n'a jamais fait te ñu leen koy wax chaque jour mm-hmm. ne bu fekkee da ngeen bëgg a opposer wu pour le Sénégalais et pour le bien des Sénégalais da ngeen di jël plan émergent bi nga xam ni président Macky Sall moom la def ngeen defar un contre plan bu ko gën proposer ko o Sénégalais nga xam ni bu nee terre baa ngi nii ngeen indi projet terre bu ko gën sénégalais yi arbitré bu ko defee baax na bu ko deful baax na ñun nag politique guñu mhm. politique laa gën a bañ ci àdduna bi man mhm. politique guñu dugguñu ci yooyu mais li ñu ñor ñu ngi koy dox da ngeen bëgg a apporter seen touche daal ci doxalinu réew mi seen touche originale une une donc lu concret mhm. lu concret xam nga Macky Sall lañ jox réew mi ak loo mën mënti wax man li ma d'accord mooy opposition bu taxaw fee maanaam ay sénégalais nga xool ne par exemple sénégalais yi dëkk bi dañ ko xar ñaar bii côté ñi farak Macky Sall hmm. bële côté ñi ñi ko ñi ko contre buy def lenn xam nga ñi taxaw contre croiser seen loxo est-ce que est-ce que opposition boobu est-ce que ñun hmm. ah, euh, euh, forme de pouvoir bi Macky Sall yore hmm. arrangé na Sénégal est-ce que forme d'opposition bi bi bi fi am arrangé arrangé na Sénégal non Macky Sall le président de République du Sénégal bu moom sax avant il a trop de pouvoir yoo xam ni mënu fi liggéey lu normal ça c'est clair som doomu aadama kese mhm. yore bi ak feuille war a xëy suba ba ngoon di buum di bumi yore sa budget yore sa lii lépp pour concentrer autour kooku yàlla ju ndaw nga te yàlla ju ndaw yàlla créé wu ko donc kooku il va échouer il a des pouvoirs tellement lourds que n'importe comment dafay échouer yow sa biir kër sax boo jëlee pouvoir yëpp doo doo fa xam dara doo fa mën dara mhm. de l'autre côté opposition bi taxaw fee yow amoo lenn lu dul lu ñu wax nga ne non bu kii gasay nga suul bu kii institut ñu diviser Sénégal en deux ce n'est pas productif donc ñun politique ñu on est dans le développement et dans la citoyenneté on est pour que ñu former des Sénégalais citoyens yoo xam ni dañuy xam seen ay devoir avant ñuy réclamer benn droit et c'est ce que font les Sénégalais le contraire ils réclament des droits sans que seen ay devoir ñu ñun loolu la ñu def sa wareef pare doog a laaj sa ay droit euh, voilà mi ngi noonu dañ lay laaj euh, en tant que koo xam ni liggéey na trente ans ci biir douane mm-hmm. tey jii dinañ la laaj euh, importance su douane ci économie réewu Sénégal waaw xam nga douane c'est une, voilà. une très bonne mm-hmm. parce que loolu bind naa ci bu yàgg pour dire que ni Euh, heure boo xamee ni douane dugal na mille milliards Sénégal xamal ni sénégalais yi dépensé nañu deux mille milliards ca àll ba pour que douane mën a am mille milliards yooyu deux mille milliards et quelque sax presque deux mille milliards et demi. Mhm. maanaam tant que douane mu ngi li muy dugal ci ci économie Sénégal ci ay droit mu ngi yokk Sénégal mu ngi gën a dellu ginnaaw loolu xam na nit bàyyiwuñ ci xel. mi ngi yokku. tant que maanaam tey. waaw heure bu douane dugalee Sénégal xam nga douane bopp ba léegi. Mm. ñu naan douane directeur bu ñëw. Mm. ñu ne ah directeur bi de liggéey na ndax dugal na cinq cent milliards. Mm-hmm. directeur douane wala douanier yi ñoom jëndi jiwuñu demuñu fenn fi ñu toog la ñu toog ñi jënd ji ñooy dem dem mm. jënd ji ñëw dédouané mais il faut savoir que Sénégalais bi nga xam dafay dem di jënd ji bu demee suppose dafay jël fii xaalis. dafay jël fi benn mille francs par exemple jóge fi dem euh, jël avion dem Chine par exemple avion boobu Sénégal moomu ko beneen compagnie lay jël commencé na dépenser suñu xaalis ci biti. Mhm. donc 1000 francs yi mu jël ci 200 francs fay billet avion dem Chine dëkk ci hôtel fay 100 francs ne bon lii laa bëggoon na jënd ñu ne ko waaye mu jënd ba pare jënde ko euh, disons benn 100 francs ñu ne ko waa léegi fukki dërëm yi maanaam day def commencé dépenser mille lu bari ci biti ci biti te yëpp suñu xaalis xaalis bi fii la koy jëlee ñun mm-hmm. ñoo liggéey pare moom mu jël mm-hmm. yóbbu yóbbu léegi mille francs boobu bu demee ba jëlaat ci kii ba defar conteneur am di defar di defar ba dellu ba nga xam ni dellu si na xam nga jaay na mille francs bi mm-hmm. douane léegi day xool mille francs boobu mille francs boobu lay xool li waa ji jëndeek li kii yëpp mu ne léegi nëgal ma taxé marchandise bi waa ji ñëw. Mhm. donc waa ji dépensé na presque benn trois cent francs pour ay yeneen mbir ak yooyu sept cent francs yi mu dépensé ko pour jënd marchandise bi marchandise boobu ñu teg ko ci bateau boo xam ne Sénégal moomu ko conteneur def ko ci conteneur boo xam ne Sénégal amu ci dara ñëw pooru Dakar. Mhm. xam nga ñëw pooru dakaar indi nga dem fay yeneen com euh, euh, kii compagnie yi ainsi tout ba mu def cent francs wala cent cinquante nga door a ñëw douane boo ñëwee douane douane ne la waa léegi coût assurance fret maanaam marchandise bi euh, la mu jaroon Chine moom mooy cent franc. Hmm. li nga ko transporté. Hmm. xam nga ak assurance bi mu bi bi bi mu amoon mu boole ñetti ñëpp taxé la génne ci benn cent franc bu mu am dama koy joxe exemple. Hmm. donc gis nga ni que pour que douane am cent franc boobu sénégalais bi. dem na dépensé génne na presque neuf cent franc. ci ci biti ci biti. te Sénégal lekku ci dara. non. léegi nag li ñu xalaat ne Sénégal dafa ci lekk moom mooy cent franc boobu. Mhm. ne dafa ci lekk ba duwaan moom mën a am par exemple euh, mille franc yi ko état bi laaj ci ci année bi dix mille franc yooyu noonu xam nga suñu pertement la il faut que. du du seen question. kon da nga bëgg a wax douane dugalul xaalis ko quoi comme ni ñu ko foogee. non day dugal xaalis ci mission xam nga mission bi nag dama expliquer la bu baax. Mhm. parce que neexul dégg. Mhm. xam nga douane dañ koy jox mission ne ko. voilà fexeel ba état bi de lii la la sas douanier di ci liggéey te di ko réussir wax dëgg yàlla di ci mhm. dee di ci kii di ci lu nekk dañ koy daj pour def loolu mais ci biir loolu c'est une politique boo xam ni mhm. xam nga moom mooy que politique d'importation la importation la alors qu'un pays normal boo xam ni économie mu ngi dox normal normalement du importation bi moom mooy dugal ay recettes fiscales yi nga xam ni nit ñi di ci dund mais exportation yi moom mooy dooleel économie Sénégal cest dire que tant que Sénégal hmm. douane mu ngi mu ngi dugal xaalis bi gën a bari moom mooy que ni douane euh, moom mooy que ni Sénégal ci boppam ci ginnaaw Sénégal mu ngi perte hmm. léegi l'idéal serait que ñu toog ba nga xam ni douane importation bi xam nga dañ naan ah douane day fexe nañu ba impôt euh, réew mi de fexe nañu ba nga xam ni douane sax réew mi moo war a daaneel douane. Mm-hmm. c'est-à-dire koom-koomu réew mi. Mm-hmm. moo war a daaneel douane. daaneel douane ba nga xam ni douane dootuñu wax ni douane ci importation bi jël na fa mille milliards mais ñu ne douane de ren xam nga. Mm-hmm. Ah? importation. jël na 500 euh, milliards. déet même pas. par lu lu lu par exemple. lu lu lu néew la la dugal ci kees yi à l' importation. Mm-hmm. mais à l' exportation. Mm-hmm. am na fa mille milliards yoo xam ne ci exportation la. ko jëlee boobu si la ñuy xam ni que Sénégal mu ngi développé wu. Mm-hmm. voilà mais tant que Sénégal ñu ngi naan que douane jóge na ci mille francs dem na ci mille francs xam nga moom mooy que ni ba léegi kon économie Sénégal doxul. parce que kon économie d' importation la. Hmm. toujours ñu ngi jëndi feneen. exportation ba léegi mi ngi souffrir ba léegi mu ngi souffrir. mais est ce que euh, douane bokk na ci euh, secteur yi nga xamante ni Covid 19 daf ko euh, andil carrément problème est ce que affecté na ko secteur boobu. ah loolu nag foo nga woo douane ñu wax <laughs> leen ko. parce que mais yaa ngi woon ci biir. non man maa ngi woon ci biir man ba ma jógee duwaan ba tey jii mhm. aw ma fa benn soxla wax dëgg fa yàlla. Mhm. parce que mois je considère. mais d' expérience bi nga am est ce que yow jàpp nga ni Covid 19. bi war na affecté. non xam nga douane moom comme li ma la ko waxee ñoom wu importé exporte exporté wuñu. Mhm. donc bu fekkee ni. Euh, richesse yi dafay daw. mais gis nañ ni dem beeg dikk beeg yooyu yëpp lu bari. loolu laay wax ni cest à que ni ñoom xëy na loolu affecté na leen mais man loolu mënuma la ci wax dara. parce que man wax dëgg fa yàlla. Mhm. douane ba ma fa jógee ba tey ji li may wax y a des vies dans une vie dama doon liggéey douane ba ma fa génnee damaa dem di liggéeyi leneen. ba aw ma sax seen jot bay toppatoo ndax ñoom ña ngay am lii wala dara. Mm-hmm. livre bi ma bind nag. waaw yow dafa mel da ngaa mere ma duwaat. non wu dugg ci ci livre bi. parce que temps bi bareetul. Mm-hmm. xam naa peut-être dinañ amaat beneen occasion defaat beneen émission. Euh, mais euh, am na euh, livre boo génnee. Mm-hmm. ne le héros sans médaille maanaam koo xamante ni def na trente ans. ci biir douane. def fa ay jéego yu am solo. koo xamante ni waroon nañ ko. takkal ay raaya mm. waroon nañ ko décorer waroon nañ ko ràññee ainsi de suite mais defuñ ko mm. euh, lan nga bëgg a wax foofu exactement lan nga doon dund ci biir duwaan bi euh, mu métti la euh, le héros sans médaille lan lay retracer sa trente ans de vie dans la douane exactement lan nga ñu ci mën a wax ci tënk waaw ci tënk maanaam moom mooy que ni mm-hmm. aw woon benn carrière boo xam ni dafa dafa anonyme mm-hmm. maanaam dama doon dama doon liggéey ak xarañ wax dëgg fa yàlla bon fu ma jaar am na lu ma fa def am naa nu ma ko fa defee am na ay saisi mhm. yu rëy yu kéemaane yu ma fa def am na yeneen ak yeneen mhm. mais xam nga tamit agent bi li nga xam ne moom mooy différence. mais est-ce que yow Badara yow yaa waroon tabb sa bopp def naa lii def naa lii est-ce que du duwaan moo waroon taxaw ne ah foog ñu euh, euh, tappal ay raaya wala foog ñu distinguer euh, Badou Ndaw mi parce que def na lii ak lii ci duwaan bi. waaw mais loolu mais yow da nga jàppee sa bopp héros. non du tout li ma def yëpp ci ci ci ci douane bi. ba ba retraité 30 ans ah te te te vraiment euh, joxuñ ma sama gëdd bi ma mérito. mais loolu am naa ci droit. waaw mais mais lu tax nga wax loolu. mais parce que dama ko def. loo def yow ci douane. mais ba ma la jox benn firnde. benn rek waaw benn kese. Mhm. ci pour parce que amuñu jot ma jox la boo demee ci livre bi di nga ko ci fekk. benn ma jox la benn par exemple loo xam ni. Mhm. moom laa doon wax ni bu ko agent defee xam nga agent yi seen différence mu ngi nekk ci kenn ku nekk xarañam kenn ku nekk euh, li muy apporter service bi donc dafa am loo xam ni boo defee lu rëy war nga am lu rëy du dëgg. Mhm. maanaam bu parce que boo jëlee agent yëpp ñu taxaw ah ñoom ñëpp a yem mais ci liggéey bi ni ñu koy liggéeyee war na am kenn koo xam ni par exemple. bu li tax ñu naan meilleur buteur ci équipe bi ñu naan sa Sadio Mané ñu naan kii wala dara parce que Sadio lañ koy doyee xam nga def na lu ëpp loolu xëy na xam nga donc y a toujours loo xam bu am bu émerger war na am récompense loolu moo tax administration prévoir ay médailles prévoir ay lettres de félicitation prévoir ay yooyu yëpp sa son des récompenses des sanctions positives yoo xam ne bu nit ki defee loo xam ne lu rëy la ñu ne ah kii kat li mu def nii lu rëy la xaaral ñu récompenser ko ci médaille bi wala lii wala dara du loolu bu fekkee ni def nga ko toute une carrière ngay def loolu du benn yoon du ñaar yoon du ñetti yoon te yow reconnaissance boobu amuloo ko war nga mën a taxaw ni pourquoi lii lii. ban statut nga amoon ci biir douane bi. statut d' agent des douanes comme tout le monde agent des douanes yëpp du du du du du. préposé des douanes. Mhm. ba ci directeur des douanes ay agent des douanes lañu. Mhm. kenn ku nekk da nga am sa liggéey ñu sas la ko xam nga. Mhm. nga war ko liggéey ni mu war a ni mu gën rafete boo ci defee loo xam ni njombe la dañ la war a euh, punir boo ci defee loo xam ni kéemaan la dañ la war a récompenser. donc du problème mu ban ban ki nga fa nekkoon. mais yow lan ngay dénoncer exactement. dénoncer wu ma je raconte. mais mais mais yaa ngi mais nee nga yow am na loo def. waaw mais ba tey waxoo ñu loo def Badou Ndao. non mën naa la jox benn exemple. waaw jox auditeurs suñ ko déggee dinañ ah kii douane sénégalaise waroon na ko jox médaille. voilà loolu di nga ko gis ci livre bi. parce que non mais instant bi auditeurs yi. ngay waxal waaw d' accord d' dama ni. loolu di ko fekk ci livre mhm. par exemple nekk naa fi aéroport ñëw mu amoon benn trafic gu or benn sénégalais doon def. Mhm. mu tuddoon bu yoroon benn société di jóge Sabodala di jël oru Sénégal di ko yóbbu di ko def lu yàgg. Mhm. mais réseau boobu man maa ko démantelé sept mois laa ko liggéey nekk aéroport du chef bu ma ko sant du lii du dara man maay toog ak sama kii di def samay investigation def samay investigation ba pendant sept mois ma jàpp ko jàpp avion ak 46 kilos d'or yu ñu jël làq ko ci suuf photo yu kii bi avion privé la yore woon mhm. loolu bi mu amee ah, loolu dara la lu rëy la parce que un bu fekkoon dafa nekkoon dans un dans une administration bu normal dinañ ma toog ñun sax administration bi ne ah kii de ni mu defee investigation bi nan la ñu xool investigation bi ne investigation bi de investigation kon bu pointu la war nañ ko mën a jël sax kon di ko jàngale ci biir école douane yi di ko jàngal xale yi nga xam ne ñu ngi ci biir école yi ñu xam ni méthode d'investigation bi am na. Hmm. bu dul loolu tamit ñu ne agent bi tamit li mu def rëy na war nañu proposer ko à la médaille de la douane parce qu'il a combattu un boo xam ni parce que lan la. nit ki booy jàpp douane. xam nga tey ji booy jàpp douane. Mhm. buy ñëw ci chef yi ñuy yegsi ci ñoom. mais ñoom dañuy xam ni yow balaa muy yegsi ci ñoom wa waa ji nga jàpp am day wax ak yow parce que c'est automatique boo jàppee nit douane danaan la chef dimbali ma bàyyil ma joxe lii. Mhm. ay xaritam ñëw ay mbokkam ñëw. waaw la corruption dans la douane. partout day taxaw. par day taxaw. waaw donc loolu mooy loolu moom mooy aada Sénégal. Mhm. man corruption dama mën naa ci bind beneen livre boo xam ne du nekk affaire ay douane bi moom moo jël parce que nit ñi dañuy fàtte ni. mais yow da dëggal corruption bi ci biir douane bi. non dëggalu ma ko li ma lay. wax am na la amul. non am na fépp corruption fépp la am. mais man ah, waxuma ah. waxuma dans cette. tas mais mais Badou yow dafa mel da nga wax corruption bi ci douane bi. man la corruption bi fépp la am. corruption am na douane. am na ci rajo bi ñu toog fi di wax am na ci presse bi am na ci. fépp am mais dañ lay laaj ci secteur douane. non dama ne la secteur douane am na corruption ne la fépp la am. sa à dire loolu dafa bokk ñun. daanoo mais mais douaniers yi dañ leen a taxé de corrompu. bon. waaw yow loolu lan nga si wax. souvent ñiy voyage yi douane yi nangu nañ sama bagage def nañ ma nii. laaj nañ ma lii ainsi de suite dañ dañ koy dégg. dama ni la dama ni la waaw looloo siy tontu. li ma siy tontu lu lu lu gàtt lay doon. sax mhm, mhm. parce que xam nga douanier yi dafa am. boo gisee tey li may wax nii. Mhm. bind ko di ko wax nii beaucoup de douaniers vont se retrouver là-dedans parce que douane majorité bi ay des gens honnêtes lañu des gens yoo xam ni seen liggéey lañu jël ay julit ay ay. ñoo xam dañu am ay ay valeurs morales yu claires. Mhm. moo tax sa douane taxaw ba tey jii nii je crois Sénégal yëpp sax noonu la demee. te ci biir mais ci biir loolu am na une petite catégorie d'individus yoo xam ni bon ñoom xëy na ñëw douane xaalis moo leen fa indi. donc nu ñu ñuy def pour am ko danañ ko fa defee. Mhm. comme secteur yëpp ni mu demee la. bon man nag par mhm. exemple. man ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. on a vécu la pauvreté en douane douane ngay gis. agent yu pauvre ba mënoo ko sax imaginer dépense bu ñuy bàyyi seen kër sax amuñu ko au moment où nga gis ñoo xam man liggéey naa douane di dem di liggéey ji ak sama vélo. kon li ñuy wax ay préjugé la. non am na lu ciy dëgg. waaw que mais... que du agent douanier yi vite vite rek ñu enrichir. non y' a certains qui s'enrichissent et ça étonne tout le monde moo tax ñuy wax seen affaire poste yeeg poste bi ainsi de suite. Mm-hmm. moi j'ai fait des postes de choix yoo xam des postes yoo xam douanier yi dañuy considérer ne boo fa demee da nga fa am alal man ma dem fa gën a ñëpp. Ah. du am sa paas bu ma yóbbu doon dem bu ndóol comme c'est may yóbbu suma kër c'est pour se ñu bokk ñun ñëpp Sénégal jarul ñu fi nag naan douanier yi la mhm. policier yi la mhm. wala kii la corruption ci ñun la nekk ak parce que nekkul sax ci ñi ñuy corrompre mais ci corrupteurs yi la nekk tey ko fi waxal ne ko dama am problème tel mun la ah bon xaaral am naa fa suma benn xarit am naa fa lii am naa fa lii lu forme de corruption la nit koo ñëw defal dara dans le cadre de son travail nga ñëw toog di liggéey liggéeyal nit normalement mu yëkkati dara di la ko jox xam nga parce que corrupteurs yi ñoom ñoo créé corruption bi nga am arranger rek te dem mais mais yow Fadou Ndao musuñ la corrompre yow en tant que agent de douane man en tant que agent des douanes. fekk la sa poste war a dédouaner euh, waa ji li mu war a def defu ko xam na ni li mu war a mën a fay normalement euh, état wu Sénégal mënu koo fay mu yëkkati benn somme jox la nga gëmm sa bët bàyyi mu jàll. musuma nekk ci trente ans yi. yi nga def si douane. musuma nekk ci situation boobu xam nga lu tax. Mhm. j'évitais les postes. comme bu ma nekkee ci benn secteur. Mhm. ma nekkee benn secteur nii mu ñu fay. encaisser xaalis gars yi xam dañu am directement contact ak usagers yi. Mhm. j'ai toujours évité ces postes là. poste yooyu. Hmm. dama ko mës a éviter. dinaa fexe ba nga xam ni poste yooyu comme man moo nekk aéroport nii kenn daaw ma gis départ kenn daaw ma gis foofu la commerçant yeeg yooyu di aw mën naa nekk def naa par exemple trois ans aéroport musuma monter arriver musuma monter départ boo ma gisee arrivé wala moo nga gis ma départ rek c'est parce que am naa benn renseignement bu may suivre di suivre benn nit ci benn affaire yooyu am naa renseignement bi di ko topp loolu moom fa doon yóbbu mm-hmm. daaw ma nekk ci position yooyu parce que c'était des positions yoo xam ni gênantes mais agent yi nekk foofu tamit mm-hmm. yi nga xam dañ nekk xam nga dafa am benn affaire buy am maa ngi koy wax ci sama biir livre mm-hmm. xam nga nit ki corruption dafa moom laa lay wax ne corruption loolu mën nañ ci beneen livre la beneen parce que gis nga tey xam nga man sama premier poste ma nekk jeune douanier dama ñëw ñu yóbbu benn magasin Air Afrique avant maa ngi koy yóbbu Air France mais dafa am benn magasin boo xam ne dañ ko doon gérer c'est un magasin boo xam ni qui n'avait pas moins de dix milliards de marchandises donc ay nit ñu am doole ñoo fa doon ñëw mais au même moment douane yi temps yooyu temps Abdou Diouf loon la ñaata la ñuy fayeeku ay soixante dix mille ay soixante ki ngay yow yaa ngi fi yow soixante soixante dix mille ngay fayeeku à la fin du mois xam nga yow ki nga taxawal di waxal. maire commerçante yooyu noonu ñoom rek ku ci nekk yaa ngi yore cent cinquante millions sa biir saak. Mm-hmm. est-ce que xam nga li ma la wax. donc yooyu c'est des choses yoo xam ne il faut ñu xool ko parce que loolu da ngay da ngay mettre da ngay jël agent bi xam nga presque livrer ko euh, ñi nga xam ne dañoo bari doole. Mm-hmm. ba pare parce que ñoom ak seen liggéey ak seen seen conscience rek ngay bàyyeek ñoom te bu ñu bañee fukk nit a ngi taxaw yoo xam ni ñu ngi xalaat naan waaye yow ban lii léegi bu maire yooyu ne bon voilà benn million ngi nii wala benn ñaari million ngi nii ma joxe ko fukki nit a ngi yoo xam ne yow boo taxawee ne danga nga koy bañ doo ko mën sax mm-hmm. doo ko mën a ñeme c'est tout un système d'accord ça veut dire que am na ñoo xamante ni douane yu bari nekkuñ dans de bonnes conditions pour def seen liggéey loolu nga bëgg a signaler loolu non mm. du du xam nga lan nga lan ngay kii ci affaire bi dénoncer ak signaler mm. man dénoncer wu ma wu ma je raconte des une histoire mm -hmm. une histoire d'une carrière où il s'est passé des choses léegi nag vision bi ci bi ci nit ñi war a am mhm. ce n'est pas une vision de dénonciation parce qu'une administration que je respecte l'administration mm -hmm. des douanes elle m'a permis de mhm. faire des des, des des des centaines de des milliers de choses de m'accomplir et signaler non c'est-à-dire que ce sont des faits yoo xam ne mën nañ si waxtaan mhm. waxtaan ci entre sénégalais xam ni lii moom moo fi am parce que même boo ko deful usagers yi ci seen bopp dama lay jox benn anecdote dama ñëw ci benn poste boo xam ni gars yi bi ñuy ñëw dafa am benn affaire bu ñuy wax passavant douane moo koy demandé à ce que booy jaay ay marchandises yoo xam ni local la nga ñëw foofu ñu signé la ko waroo fay dara gars yi dañ doon fay maanaam bu ñu ñëwee douane dañ doon fayeeku ñu fay mille pour ñu defal la passavant nga dem man bi ma ñëwee première fois monté ko gars yi bi ñu ñëwee commencé defal nga man la non waroo fay c'était un groupe. Mm-hmm. mais groupe bi dañu dem. fekk douane yi yeneen yi bon ba fa ci seen kër. Mhm. boobu naa ñu woon dans les régions là ba seen kër ne leen mais chef bi nekk ci kii ba fëlekat bi ñu bëggee fay dafa bañ. ñoom maanaam fay bi moo leen gënal wóoluwuñu ñàkk a fay bi mm, ñàkk a fay parce que dañoo tàmm fay bi dañoo tàmm fay ba yaakaar ni moo loolu yaakaar ni moom moo loolu. Mm. donc tu vois y tout un dafa bari ay ay ay environnement par exemple. waaw temps temps bi xoj nañu de. oui mais je te dis. <laughs> mais waaw fay ca. Mm-hmm. non non c'est c'est bon c'est-à-dire que. Mm-hmm. je ne parle pas dans mm. mon livre mm. de la corruption en tant que telle kooku mën naa ci bind livre ay cinq tomes mais li nga dund ci biir douane mais li ma ngay raconte voilà lay raconte donc mooy mooy mu am si ay leçons yu de vie yu bare bare yoo xam mën nañ ko ci tirer mën nañ ko si tirer mm-hmm. xam ni ko aussi euh, comme la plupart des fonctionnaires parce que c'est la plupart des fonctionnaires tey jii euh, les meilleurs il sont euh, dañ leen di garer sûrement que beneen culture boo xam ni ma nga commencé ca kaw ba ci suuf larbinisme boo xam ni ñi nga xam ni ñooy wax ak chef bi ñi nga xam ne ñooy wax lu ko neex ñi nga xam ne ñooñu ñoom ñooy nekk. ci mais mais est-ce que euh, livre bi nga génnee douane du la ci mere au yi ñu nekk ci kaw. mais man ñooñu ëppale wuñ ma dara ci douane. Hmm. est li ngay wax ci biir c'est vrai ñooñu moomuñu duwaan mhm. ñooñu moomuñu douane te ëppale ma ci douane. parce que duwaan man ba ma fa nekkee dama ko loo dama wekloo douane dama daan sol sama tenue normal di liggéey normal amul commerçant bu ma yàpp amul transitaire bu ma yàpp te bu ma solee suma tenue taxaw nga xam ni kii am naa nu ma war a waxee moom ak am naa nu ma war a wax warul wax. donc amoo benn jeune le héros sans médaille xam naa peut-être dinañ amaat occasion <laughs> parce que c'est vaste liñ mën a wax ci duwaan bari na euh, Badou ndaw peut-être on aura l'occasion defaat si beneen débat defaat si yeneen émission incha allah mm. euh, surtout ma bàyyi la nga tàggatoo ak sa livre bi héros sans médaille euh, ban appel nga ci bëgg a lancer sénégalais yi auditeurs yi voilà non c'est un livre boo xam ni c'est ma propre vie je crois que ni nit mm-hmm. ku nekk ñëpp sax dañu war di bind mm-hmm. seen ay euh, expérience li ñu vivre mu neex mu naqari. Mhm. nit ñi dañ ko war a bind parce que loolu la ñu war a léguer mhm. les autres générations mhm. boo gisee xale yi tey di tëb ñun seen papa yi ak seen nijaay yi ak seen affaire yi di ñu tëb di dem di jël ay yeneen référence par exemple tey man kanton di waaw Sénégal de maam Abdou manqué na fi mois je suis gêné parce que je me di que kon ñun suñu génération maam Abdou ñun suñu ñun ñun ñoo war a wax ay waxam mais génération bi warul wax ay waxam parce que ñun ñoo ko xamoon mais ñun génération bi suñu war a suñu wax la ñu war a wax mais ñun bu fekkee ne binduñu waxuñu ay loo xam ni def nañ ko ci kii loo xam ne xale yi mën nañ ko jël comme ay repères ay ainsi ce n'est pas bon c'est le but de ce livre la livre bi dama ci raconter mon expérience je suis pas un héros c'est le l'éditeur moom moo ñëw <laughs> def ko ci man j'avais dit mhm. les aventures d'un douanier je le précise très souvent d'accord bon voilà kon ñu koy remercier incha allah dinañ defaat yeneen émission yu bare bare ci wàllum douane parce que c'est intéressant ak tamit ci livre bi xam naa c'est Elisabeth Diatta dina la mën a jël ci l'encre et la plume donc euh, ñu koy remercier bu baax a baax euh, kii di Alioune Badara euh, Ndao nekk président bu mouvement acte action civique retraité de la